Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Je le maire de Dakar. Aux adjoints du maire de Dakar, Monsieur les maires des communes, chers notables du village Jongor, maa ngi nuyu ñëpp ci turu conseil municipal bi di dalal monsieur le maire Barthélémy Toye Dias bi nga xam ne mooy maire Dakar di ko dalal ci këram maa ngi koy wax sànq rek ne il n'y a pas un boo xam ne boo ñëwee Ngor doo fi am ay souvenirs notamment la plage Ngor képp ku màggee Dakar rek min nga fii ñu koy dalal di dalal mbooleem ñi mu àndal invité yi fi nekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal je vais très ndax waxtu bi sori na kaddu yi monsieur le maire ginnaaw dalal la kaddu sant la ak gërëm la waaye balaa ñoo sori ci kaddu gu damay dama lay jotali benn doléance mu jóge ci ñii ñu souhaité monsieur le maire nee nañ ma naa la wax ne ils ont des contrats saisonniers de six mois dañu bëggoon monsieur le maire mu nekk ay contrat yoo xam ne day dem at mi yëpp ndax nag loolu xel nangu na monsieur le maire la plage Ngor day recevoir ay nit toute l'année donc yàlla na jaatu na ñu ma fi nekk année bi yëpp ma leen di gërëm di la sant monsieur le maire ci sa tur ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ni ñu ko fiy amee di ñaan itam au non de tous les maires effective bi su yokkoo itam monsieur le maire nous sommes parce que nag ku ñëw Ngor wala nga dem Yoff BCEAO wala nga dem Cambérène gis na li fay nekk ci ay maîtres nageurs sauveteurs ak li fay nekk ci population ñii suñu yokkee effectif bi les maire vont prendre et incha allah nous sommes preneurs monsieur le maire. monsieur le maire je voudrais également rendre hommage à un collègue un ami un frère. monsieur Ndiambe Samb Ngor yàlla def na vous venez ici tous les matins c'est un hôpital à ciel ouvert fii boo ñëwee day am activité aquagym et je pense que c'est le centre d'aquagym en eau libre le plus grand d'Afrique donc loolu fierté la ñu ñi dëkk Ngor muy amee suñu plage monsieur le maire ñuy ñaan nga jàppaleel ñu ko bu baax a baax a baax a baax monsieur le maire C'est l'occasion également de rendre un hommage au rassemblement des transporteurs vers l'île de Ngor seen mag ñi ñu ngi foofu maa ngi leen di seen léegi le vieux Libas Seck ak le vieux Samba ñu ngi noonu ne ci gannaaw c'est le moment de leur rendre un vibrant hommage di féliciter équipe bi ñu àndal ñoom ñëpp monsieur le maire yegg nañ les projets liés à l'aisance aquatique Ngor bu njëkkoon géej bi waa ngoor yi xale yi fi la ñuy jànge fi la ñuy foowe fi la ñuy lépp waaye gis nañ ne tey jafe na xale yi ñu mën a am accès ci géej bi ndax wóorutul donc tey bu fekkee yaa a des projets pour am ay bassin pour mën a dimbali nit ñi ñu jàng fee nous sommes preneurs et may gërëm madame Taye ndax démb on a été au stade de Ngor pour xool nan lañ mën a aménager foofu parce que ñëpp nag mënatuñu ñëw fii il serait bon ñu dëkk côté Almadi ñu dëkk côté Casino ñu aménager leen ay espace yoo xam ne mën nañ fa jàng mën nañ fa jàng fii monsieur le maire les JOJ 2026 activité yëpp yi nga xam ne c'est relatif au surf Ngor lay amee et j'en pour féliciter sunu collègue Omar Sey bi nga xam ne il a été élu bu yàggul le président de la confédération africaine de surf monsieur le maire nous voulons que nga accompagner ñu ñu aménager la corniche Jalmadi pour man fa def un village de surf et j'en profite pour nuyu une délégation de l'agence sénégalaise de promotion touristique bi nga xam ne àndoon nañu ak commune de Ngor ànd ak la fédération de surf dem El Salvador pour faire du benchmarking xool nan la ñu mën a taxawalee un village de surf à Ngor monsieur le ngi ñaan la ville de mu accompagner sa projet avec la SPT avec la commune de Ngor mais également avec la fédération de surf monsieur le maire am na lu nag bëgg naa ci taxaw rappeler ko Cheikh Djibril wax na ko sànq gis nga ñun bu dee am nañ loo xam ne ñëpp xame nañ ñu ko mooy ku def lu baax dañ koy wax ku def leneen nag mën nañoo maanu nopp ci waaye ku def lu baax dinañ ko wax ba ñëpp dégg ko je pense que diggante bi nga toogee daaw ak ren ñëw nga ngor lu bëri nekkul nag par parloo amay bañ Seydina sama kilifa amay bañ Seydina sama kilifa am na mu ko gisee waaye dafa nekk réalité à chaque fois bu population yi soxla soxlawee suñu remontee soxla bi nga faj ko dafay baax ñu koy la ne dernière en plein hivernage inondation bi ñu am Ngor ma su ko dund vous avez été la seule autorité bu ñëw non seulement accompagner ñu doter ñu matériel andi sa ay équipe ñu ànd ñu et vraiment je félicite Junior ñu lay gërëm monsieur le maire bu baax ci loolu di la wax ne Ngor kenn koo fi defal lu baax waa Ngor yëpp dinañ ko yëg ñu ngi lay sant bu baax ci loolu monsieur le maire également ñu ngi lay sant sur les projets d'accompagnement pour ñu aménager suñu stade ak les espaces pour les jeunes bu yàggul bi nga fiy ñëw ci wax na ko ñu am ndog-ndog avant sax ngay ñëw Ngor Paris la la fekk on a suivi sa benn plateau TV5 Monde nga def ci taxaw seetlu bu am solo wax àdduna bi yëpp ne leen li ñu teg Ngor du dëgg du yoon jaaduwul jaare fa gërëm waa yëpp ñaanal leen loolu lu rëy la ci ñun. bi nga ñibbisee nga ñëw ba Ngor seet see waa Ngor dem ci kër gi amoon bi amoon ndog-ndog jaale leen loolu dafa rëy ci ñun monsieur le lay wax ne jeunesse su Ngor ñun jeunesse su Ngor rek la ñu am. ku ñu bëgg a defal defalal jeunesse Ngor et loolu defe naa bañ ci tàmbalee ba léegi yaa ngi ciy ñu la ci sant bu baax le stade de Ngor j'étais avec madame Taye hier dina la defal rapport bi pour andil la ko si projet yi nga xam ne bëgg nañ ko fa et le dernier point monsieur le maire bi may jeexalee mooy l'aménagement de la voirie Almadies nga miin ko bu baax dañuy yàgg di am ay besoin pour ku leen accompagner ñu defar seen cadre de vie dafa doon jafe les mairies notamment la mairie na Ngor amul les capacité pour mën a def loolu lépp ñu ngi lay talalaat loxo gis nañ Birahim Ndiaye on a échangé ñu ngi talalaat loxo la ville de Dakar pour mu aménager Ngor notament notamment Almadi seen rue yi ak ruelle yëpp monsieur le maire di tëj ci sant la gërëm na di la wax ne suñu mbokk yi suñu frères yi suñu xarit yi contrat yi ma doon wax yóbbu ko at monsieur le maire dama ciy dolli ne bëgg nañ également am na fi ay xale yu ñu formé en sécurité gardiennage bëgg nañ également ñu recruter ci waa Ngor ñu mën a ànd ak sa mbokk yi ak sa collègue yi pour dimbali suñuy doom dimbali suñuy rak ci wàllu liggéey di wax rek ne plage bi plage Ngor la plage Sénégal la di wax ne fi ma taxaw nii maa ngi fi taxawal yoof ak wakaam ak Cambérène ndax c'est un seul territoire ñu lay gërëm monsieur le maire ma koy seedeel ñëpp ci initiative bi nga am pour accompagner ces maires yi ces communes ndax nag dafa nekk ay communes yu spéciales ñuy gërëm ak ñaanal Pala vraiment notre ami et frère Pala ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana suñu yaay suñu tata bi nga xam ne moom la yàlla dénk ndombu tànk yi yàlla na ko yàlla jàppale di gërëm waa Ngor yëpp di leen sant di leen gërëm di wax rek ne ñun Ngor la ñu monsieur le maire ngor mooy sama parti ngor mooy sama parti ngor mooy sama parti ku jàppale ngor monsieur le maire jàppale ngor Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la commune de Ngor, Mesdames et Messieurs les maires des communes, chers collègues, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs les membres du bureau municipal de la ville de Dakar, mesdames et messieurs les autorités administratives, monsieur le représentant du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, monsieur le représentant du commandant de la gendarmerie, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, messieurs les autorités coutumières, Mesdames et messieurs, en vos grades et titres respectifs, honorables invités, nous voici réunis comme euh, chaque année en prélude aux grandes vacances scolaires, moment de grandes affluences au niveau de toutes les plages, qu'elles soient autorisées ou interdites. À la baignade, elles sont toutes fréquentées. Personne n'est sans savoir que Dakar est une presqu'île. Elle est ceinturée d'est en ouest par la mer. Jadis, l'un des plus beaux littoraux d'Afrique, jalonné de baies, de caps, de pointes, d'une petite baie peu profonde qu'on appelle Anse, je veux la mythique et belle plage de Anse Bernard, dont les travaux de réalisation d'une voie d'accès seront bientôt lancés. Bref, d'une structure littorale diverse dotée d'un écosystème et d'une biodiversité attractive. Dakar reste intimement liée à la mer. Elle en constitue sa frontière occidentale naturelle. Elle est en même temps parmi les rares lieux de loisirs dans une ville capitale du Sénégal, une mégalopole où parfois les fortes densités obligent les jeunes à passer beaucoup de temps dans les plages avec des risques certains. Honorables invités, permettez-moi de rappeler que même si les usagers de nos plages sont exposés à de nombreux risques, la noyade reste le risque le plus dangereux et le plus mortel. C'est un véritable problème de santé publique. Elle tue plus de 350 000 personnes par an dans le monde. Elle est la troisième cause de décès par traumatisme non intentionnel et représente 7% de l'ensemble des décès par traumatisme. Chaque année, notre pays compte près de 300 décès par noyade, la deuxième cause de décès après les accidents de la route. Les professionnels ici présents savent que le décès par noyade est atroce et brutal. Il est causé des voies respiratoires. Une victime de noyade sans assistance appropriée en meurt au bout de six minutes. Cette situation m'impose en tant que maire de la ville de Dakar de doter de 26 plages, toutes les 11 sont dites à la baignade, à traduire en la vision d'une gestion intégrée mettant en synergie et non publics pour lutter contre la recrudescence des décès par noyade à Dakar. Cette importante cérémonie précède la célébration de la journée mondiale prévention de la noyade décrétée par l'Organisation des Nations Unies le 25 juillet de chaque année. étant conscient des difficultés à exécuter les mesures d'interdiction de la baignade sur certaines plages, nous avons pris la responsabilité de surveiller pendant toute l'année toutes les plages de Dakar, qu'elles soient autorisées ou pas. C'est pourquoi l'une des premières mesures de mon mandat a été le recrutement de 20 maîtres supplémentaires à l'issue d'un concours pour hausser nos effectifs à 100 éléments. Nous comptons doubler cet effectif avant la fin de notre mandat et mettre au moins deux surveillants permanents par plage. Une mission lourde que nous nous sommes assignés, dont la réussite relève d'une œuvre de participation collective des 12 collectivités territoriales disposant de façades maritimes. des forces de sécurité du ministère de l'Intérieur notamment, des autorités coutumières, des plagistes, des riverains, des usagers de toutes sortes, des associations et clubs nautiques, de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et surtout et particulièrement des parents. Distingués invités, comprenez notre émotion on constate déjà de quatre morts sur nos plages avant même le début des grandes vacances scolaires. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à leurs parents et prions pour que Dieu les accueille en son paradis céleste. Nous rappelons par la même occasion au ministre de l'Intérieur que les travaux d'embellissement sur la plage de Kousou devrait être suivi de fortes mesures de sécurité en collaboration avec la ville de Dakar, qui jusque-là est l'unique garant de la sécurité des usagers dont la présence évite des dizaines de victimes de noyades par jour. La gestion intégrée est celle qui conduit à la synergie et à l'efficacité. Elle transcende les pesantaires subjectives c'est la gestion axée sur les résultats. Elle correspond exactement à notre vision du Dakar Beñu Bokk. Chers maîtres nageurs et surveillants de baignade, vous avez choisi de risquer vos vies si précieuses pour en sauver d'autres. Ceci doit être un sacerdoce, un défi personnel, un sens élevé du devoir et de la responsabilité. Nous savons tous que sans vous, il y aurait eu des centaines de morts par an sur nos plages. Vous avez choisi d'associer courage, persévérance et responsabilité pour embrasser ce métier d'une noblesse exceptionnelle. Qui d'autre que Dieu pour vous retribuer vos sacrifices Je suis au courant de ceux qui se blessent en sauvant des vies, de ceux qui restent plus de 9 heures par jour sous le soleil de ceux qui sont obligés de sursoir à leurs jours de repos pour combler nos effectifs parfois insuffisants. En somme, je suis informé de vos sacrifices inestimables pour lutter contre la noyade. Je suis au courant de vos difficultés à trouver, sur certaines plages même, un espace pour installer vos postes de secours. Je suis informé même des poursuites judiciaires et condamnations dont vous faites l'objet dans l'exercice parfois passionné de votre noble métier. Je suis également au courant de vos défaillances pouvant altérer votre mission. Un maître nageur, sauveteur et surveillant des baignades doit être à son poste de façon ponctuelle et assidue. Un retard ou une absence peut être fatal à un baigneur. C'est pourquoi nous voulons par arrêté municipal mettre sur pied un comité technique de gestion des plages pour harmoniser nos visions et mettre en synergie nos moyens de lutte contre la noyade. Chers invités, permettez-moi de m'adresser à nos vaillants maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade de la ville de Dakar. Je commencerai tout d'abord par rendre un vibrant hommage à vos formateurs. je ne peux pas ne pas citer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage, et la prestigieuse école de sauvetage Les Dauphins de Ngor, de notre partenaire Niamey Samb, à qui je rends un vibrant hommage ici. Votre métier est si réluisant que d'excellents nageurs, de grands champions de natation et même des membres de l'équipe nationale accepte d'être recruté par la ville de Dakar comme maître nageur. Je pense à Matar Samb Dengor, de Yaye Diagne Diagne Dengor, de Ndaï Tabara Diagne, de Abdou Karim Sek, de Mahfouz Meng, de François Malak, de Ousseinou Gueye, de Sidi Mohamed Fall, et comme disent les Wolof Lin Djoum et de tant d'autres qui n'ont plus rien à prouver en matière de natation et de sauvetage sont à nos côtés pour renforcer nos équipes, faisant de la ville de Dakar un précurseur dont le modèle est en train d'être repris partout au Sénégal et en Afrique, à travers notre brillante participation à la dernière conférence africaine de sauvetage à Alexandrie, en Égypte. Nous avons décidé d'améliorer vos conditions de vie et de travail

de combinaison de natation, de tentes pour les postes de secours provisoires, de tenues de surveillance, de lacoste de coton, de planches de sauvetage et casquettes en perforation et j'en passe. Ensuite, de poursuivre le projet d'implantation de postes de secours sur toutes les plages de Dakar, à l'instar de ceux de la BCAO et de Virage et prochainement ici à Ngor, à Koussoum, à Anse-Bernard, de renforcer les effectifs permanents et de regarder avec les services compétents, au même titre que tous les métiers à risque, comment vous octroyez des primes de risque. Chers maîtres nageurs et surveillants de baignade, votre mission doit essentiellement reposer sur la prévention à travers l'accueil des usagers et leur information relativement aux risques de noyade et d'accidents de toutes sortes. Un bon surveillant de baignade prévient plus qu'il n'intervient, car l'intervention comporte des risques aussi bien pour le sauveteur que la victime. Et si vous devez intervenir, faites-le en équipe, avec courage, lucidité, sérénité et responsabilité. Nous allons ainsi insister ensemble sur la sensibilisation sur les consignes de sécurité, sur la signification des drapeaux sur les plages, mais surtout sur le respect des horaires de baignade, qui, je le rappelle, ces horaires sont de 9 du matin à 19h le soir. Sur l'interdiction de la vente d'alcool et la consommation de produits interdits par la loi et la présence animale et la, vulgaris la vulgarisation des gestes de premier secours en cas de noyade. La baignade nocturne doit être rigoureusement punie. Les tentes fermées doivent être interdites et enlevées. Certains comportements contraires aux bonnes mœurs doivent être sanctionnés par les forces de sécurité dont la présence est indispensable. Enfin, chère population dakaroise, Pour moi, savoir nager reste le meilleur moyen de prévenir la noyade pour nous qui sommes des presque insulaires. Savoir nager est une compétence qui permet de sauver une vie, au moins la sienne. C'est alors une compétence de vie. Préserver sa vie est fondamentale, elle n'a pas de prix. Le programme Je vis à Dakar, je sais nager nous amènera à promouvoir l'apprentissage de masse, la natation. C'est dans ce sens que s'inscrit le programme Aisance aquatique avec le Grand Paris Sud. Des maîtres nageurs et surveillants de baignade de la ville de Dakar sont en train de bénéficier de formations aussi bien à Dakar qu'à Paris en vue de développer de nouvelles techniques simples d'apprentissage la natation. des bassins mobiles seront bientôt installés dans beaucoup de communes pour développer l'apprentissage de masse de la natation à l'école. Il est important de rappeler que dans le cadre de notre programme Dakar Binubok, j'ai à cœur la construction d'autres piscines olympiques pour que l'accès aux cours de natation ne soit plus un luxe, mais plutôt une aptitude permettant de survivre et même de s'épanouir en milieu aquatique. Avant cela, nous avons doté les plages de matériel de balisage pour amener des zones réservées uniquement à la baignade, pour encourager et faciliter les cours gratuits de natation de masse. Chers parents, je vous invite à veiller sur nos enfants. Ils sont l'espoir de notre pays. Accompagnons-les autant que possible à la plage Apprenons-leur la natation, car malheureusement, la mer tue. Je voudrais à ce stade, je le disais tout à l'heure au maire de Ngor, rendre un vibrant hommage à un homme que je ne pourrais peut-être pas reconnaître dans cette foule, parce que quand j'étais jeune, je faisais partie de ces jeunes qui venaient des SICAP pour venir nager ici à Ngor. Et je me rappelle de l'époque de la pirogue bleue et de la pirogue verte. Et je me rappelle de ce fameux Libas. Alors Libas, je ne sais pas si je peux le ici. Vous voyez ce monsieur, ce monsieur, il a contribué à notre éducation. ba ñuy ñëw fii di def lu ngeen xam ne du nak sa noonu daan noon na bokk ci ñu doon daan nañuy woon ragal police du ñu ragal gendarmerie wante kii dañ ko ragaloon kon la woon ñool ci kaw am doole nekkoon nit ku baax nag mais doo ñu teg ci yoon libaas yàlla boo am pay na la yàlla fay sa sa taxawaay ak lépp lu nga liggéeyal ndawu Ndakaaru yi su ma juumloon c'était la pirogue bleue y la pirogue verte c'était Samba ou Momal voilà vous voyez moo tax ma ku juddoo Dakar yaroo Dakar di nga xam Ngor wallaay jërë ngeen jëf bokk ngeen ci ñu yar maa ngi fàttaliku ba ñuy bàyyeeku Sicap di ñëw fii dañu doon ñëw di indaale cent franc dañuy fay karapit Bourguiba ba fii mooy cinquante franc aller cinquante franc retour pirogue bi dañ ko doon traversé su ma jumale tamit amoon na un arrêt au milieu ou Ousseyn xaw nañ ma daj fi tamit Ousseyn parce que amuñu woon paas pour fay pirogue wala paas bi dañ ko doon jël pour yóbbu ko jënd sandwich c'était ça le plaisir de l'île de Ngor donc ces gens la ont grandement contribué à ce que nous sommes devenus ba ñuy doon ay tout tànk on n'avait pas les moyens de partir à la piscine fii moo nekkoon suñu piscine fii moo nekkoon suñu grande vacances fii moo nekkoon suñu àjjana donc wax dëgg yàlla ñii yàlla na leen yàlla fay seen xol ak yàlla na leen ñuy liggéeyal Dakar Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu, par sa miséricorde, qu'il bénisse nos plages et surtout qu'il veille sur nos enfants pour cet été et les étés à venir. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée très bon week